La République s'est effondrée. Il faut que les gens le sachent. Il n'y a plus de République au Sénégal. Il y a une dictature rampante, debout, volante, et violente de constitution. Donc voilà ce qu'on a au Sénégal. Il y a Amatoul, Amatoul démocratie, Amatoul république. Puisque Sénégal mon justice bi ak euh, assemblée nationale dañoo dem jébbalu ji ci exécutif bi ñoo wax pouvoir exécutif par euh, législatif judiciaire mais ñaar ñi dañoo bàyyi sen daraja jébbal ko Macky Sall lu ko neex rek ñu topp ko ci donc dem ci ñoom di kalaame Macky Sall mais ñàkk fayda la amatul benn sens ci Sénégal